ànd ci Mouhamed Ali Mouba. dal leen ak jàmm Aïda mi ngi ci guddi yu bët setugul xam ngeen Aïda Mbacke mooy ku jëloon essence sotti jëkkëram taal ko ca kooku jaar fa wuy ci boroom danaa ñu fàttaliku Aïda Mbacké moomu gannaaw bi mu wasinee nag ñu yóbbuñ ko ci clinique mu toog foofu di xaar démb nag journal l'Observateur nee na ah gendarme yi ñëw nañ na nee ko Aïda jógal ñu dem paqueté dugal ci oto yóbbu pour enquête moom depuis démb kon mi ngi ci loxo gendarme yi di ko enquête fana tàngoon ne ah kii di Aïda Mbacké bu ko yàlla jàppalul de ah lu ci gën a de ndaxte moom dañu visé ni ay fait criminel la def yëfu maate yëfu criminel rey nit taal ko boo mayul dina ci am problème bu mag ndaxte ndaxte enquête nee na fait criminel la sama naataango bi di l'observateur woo benn avocat ngir kooku faram-fàcceel ko lu ñu njort ni kii di Aïda Mbacké loolu la def kooku nee leen ah Aïda Mbacké de man lu ma jàpp ci affaire boobu mooy bu mayul de dañuy retenir assassinat nga préparé ba pare lu ngay def nga rey nit daanaka dafa prémédité coup bi mu def avocat bi yokk nii te bu ko yàlla jàppalu itam du am benn circonstance atténuante ndax de dañu jàpp nii dafa def yëf maa tey waaye nag journal bi nee na Aïda Mbacke am na ñoo xamante ni dañoo njort ni moom dafa am problème santé mentale daanaka xel bi neexul noonu sama naataango laajaat question bi kii di avocat bi kooku ne ah man de xaw ma lu ci bëri bu fekkee ni nag Aïda Mbacke bi muy def loolu dafa ànduloon nag xelam xëy na yàlla mën na ko jàppale waaye nag bu fekkee n loolu daf ko dikkal gannaaw bi mu defee li mel ah loolu de man gisuma ko mbaaw loolu mooy problème bi mu toll nii ñun munuñ ci wax lu bëri daanaka médecin traitant bi moom mooy bind rapport expliquer clairement ndax ay dam Mbacké lu mu def noonu bi mu koy def àndoon ak xelam wala àndul ak xelam te sama naataango ne ah foofu mooy lépp de ndaxte rapport bi mooy tax juge bi xam lu muy def ci foofu la juge bi nara a atte dossier boobu foofu la nara sukkandikoo su ko defee mu xam lu muy juge kii di Aïda Mbacké beneen affaire bi nekk ci Sud Quotidien mooy affaire Médinatoul Salam daanaka bi Cheikh Béthio léegi nii ñi nekk ci ndungu siin fële ci Thiès ñu ngi xaar juróom benn at gannaaw bi affaire bi amee double meurtre ba léegi nii ñoom ñuy foofu la sama naataango bii di Sud Quotidien ne ah loolu doy na waar ndaxte fukki ak juróom cantakun yi ñu ngi ci ndungu kenn jugew leen kii di CBJ bi ci wàllu woowu leen jàpp ni mooy ndey mbile ji moom mi ngi ci ginnaaw kenn jàppatu ko mi ngi ci liberté provisoire sama naataango ne ah lii lay doy na waar mu jox parole nag avis droit de l'hommiste ki di maître Amadou Ali Kane Bourado nee na lii doy na waar ndaxte munoo téye ay nit juróom-benn at lettoo leen firoo leen kii di Assane Dioma Ndiaye Ligue sénégalaise des droits humains moom itam yokk nii loolu normalul te ji waroon nañ tenir procès bi su ko defee ñu xam fu ñu féete journal Source A moom xëy wax ci DER bi direction de l'entrepreneuriat rapide daanaka programme bi nguur gi tëral ngir jàppale ndaw ñi ñu mën a financé wu mu gën a gaawee nga joxe sa dossier ñu jox la xaalis su ko defee nga mën a def sa entreprise bopp manataango bi di Source A ne ah bu moyul dee loolu ci kopp la jëm ndaxte nu ñuy financé nit ñi daanaka lu jaar yoon la amul benn garanti ñu laajaat sama nataango lan moo xew mu ne ah boo xoolee DER daanaka jox la xaalis lu mu lu mu la neex en veux tu en voilà luñ doon wax ni ah am na ay garantie gars yi da ngay jaar fii tourné fële da ngay indi lii boo jëlul dañ lay yàpp et cetera loolu lay wax la sama naataango nee na ah am boo xoolee bu baax crédit mutuel dossier yi daanaka du dossier da ngay ñëw amul garantie boo joxe six mille francs say photo ñu jël xaalis teg sa loxo nga dem sa yoon. ma naataango ne lii ah lii dafa mel ni politique politicien la ci loolu nag sama naataango waat ci Aliou mi wax ci wàllu ONG LEAD ndaxte dañoo newoon ONG LEAD dañuy jëlee agréam ndaxte dafa financé yanamar xaalis bu bëri kopp ka xaalis journal Les Échos nee nag ah. fu mu toll nii affaire boobu daanaka léegi mu sotti ndaxte Aly Ngouille Ndiaye ministre de l'intérieur ak Lead Africa d'accord nañ fu mu toll nii Aly Ngouille Ndiaye nee na dina joxaat Lead Africa agrément pour mu continuer liggéeyam Mignane Diouf mi dox yëf yi nee na ah lii moo gën lii moo gën jàmm moo gën ay ndaxte fu mu toll nii tension politique bëri na jarul ñu nekk fii di topp ay ay ONG ñu wax ci politique na fu mu toll nii ndaxte fichier électoral bi ba léegi nii mi ngi ànd ay problème diggante opposition bi ak nguur gi l'observateur dellu nag ci ci comité bi waroon joxe recommandation ci mission d'audit fichier électoral bi ne moom nag nee na am na loo xamante ni baax na ci fichier bi waaye nag am na loo xamante ni bon na ci journal Les Échos ne tey jii ma wax leen nag lu ci bon ndaxte lu ëpp téeméer junni problème mi ngi foofu am na loo xamante ni daanaka ay tur yu leerul wala ay tur yoo xam nañ ko bindee jaarul yoon yoo mi sant Njaay ñu sant loola Jàllo njégéen walla yoo mi sant Ba ñu sant loola Fay loolu yépp ay erreur la naka noonu changé ay tur sama naataw nga ne ah lii de doy na waar Samuel Sarr moom nag biñ ko joxaa départ mu ne waan waxoon naa leen ko fichier bi baaxul te fu mu nekk nii Aliou yaay mi ngi yor ñetti fichier benn fichier lañ jox te ba léegi nii bu fekkee ni gëmu leen ma député yi nañ jóg dem gis Iris Corp ak Synapsis su ko defee ñoom dañuy xam lu may wax ñu jeexal ak sunu làmb mi xëy dalal Gaston Mbengue promoteur de lutte ci combat mu Lo Balla Gaye mu ne ah boo moyul de du am ñu laaj ko lan moo tax mu ne du man ndaxte man dama jàppoon ni saison lutte bi dañ koy ubbi le premier octobre te fu mu nekk ni loolu lañ calculé woon ba léegi nii yëf yi nii la mel dafa am retard kon bu moyul ah bu amee ngeen xam ni du man de man moom def naa lu man kon gisee ngeen sa bopp ni munuma fixé benn date ci wàllu bëre diggante Balla Gaye 2 ak Modou Lo jërë ngeen jëf.